salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki ah, bokki bokki bokki taalibe eh, maa ngi dégg ay yëngutu ci dëkk bi yoo xam ne yu ma jóge kaw ah, lu mën a xew daal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 bu leen bu ngeen bëggee jariñu tey ak ëllëg ku ci bëggula jariñ jariñu tey ëllëg nag yaa xam waaye ku bëgg tey jariñu tey ak ëllëg nag xool ci man na ñëpp dal da ngeen dellu ca kër ya ne tekk déglu ndigal ba ma xam lu waral lii ndax defe naa mos fee am